la amee site internet eh, dalee nag jàmm seen chaîne préférée di Mouride Sadique TV tey nag seen actu du jour li ci gën a fës nag dañ koy dooree li jëm nag ci wàccaayu élection présidentielle yile ak tamit coow bi nga xamante ni daal nañ ko si nemmeeku jamono ci lee tax nag yéenekaay bi lee di point actu si di si dellusiwaat bu baax a baax moom mi leen nag li muy xalaat ne rek kon boo moytuwul dinañu daal di reporter yooyu les élections ñu daal di defaat beneen dialogue boo xam ne rek dinañu mën a permettre ñu mën mën a am ay élection yu mucc ayib gannaaw nag lenc lenc bi nga xamante ni dañ nañ koy nemmeeku ci processus électoral bi leen ñëpp jàpp ni kon boobu de processus jaarul yoon benn yoon te ak li nga xamante ni mooy parrainage bi de tax nag ñenn ci politiciens yi nga xamante ni rek ñoo fare ci opposition bi ku ci mel ni nag kii di Abdourahmane Diouf Aminata Touré ak Bougane Gueye Dany ñoom ñi leen rek dañ nañoo door ay démarche jamono ji lee tax nag yéene kaay bi lee di point actu di sampalaaj ndax kon yooyu lee

union européen ñu jàpp ni li jëm ci mbirum parrainage jaarula yoon ci noonu ñoo xam ne ni di di fichier électoral bi nga xam ne rek moom la waa conseil constitutionnel yore jamono jile du fichier bu baax bi ñu sukkandikoo nag ci la tribune mu ngay xam ne ni kuréel bi nga xam ne moo ëmb candidat yi ñu éliminé ci parrainage bi lee nee nañu lu toll ci neuf cent mille ci ay électeurs nekkuñu ci fichier électoral bi lee tax nag ñu daal di déposé ñeent fukk benn plainte jëm nag ci mbir moomee jëm nag ci mbir mbirum dialogue bi sax ki nga xamante ni mooy Alioune Tine moom daal di yëkkati ay kàddu moo xam ne ni kon ñi nga xamante ni ñooy wax opposition bi dañu war a watt nag ak nguur bu senegal laata élection yi lee te nag weesuwul benn yoon gannaaw nag coowal bi nga xamante ni jamono ji lee daal nañ koy nemmeeku jëm nag ci processus électoral bi lee waaye tamit candidat yi nga xam ne rek ñoo fare ci opposition bi lee بسم الله ila